boo xoolee sama bopp bi rek macha allah nga xam la moo tax ñu koy tàmm ndax mën na li muy def. man moom maay première client am. lu ma defarul baaxul lu ma defarul rafetul. des nga létt bu pare doo fay nga dem ba ay une semaine nga andi xaalis ñun ñi dañuy maquiller suñuy amee xew moo ñuy defaral poser ñu ñu lépp. ñun bu ñu demee ba ñemee dugg ci marché bi wala ñemee liggéey ci moom lañ ko gisee. loo ko jox mu defaral la ko te faatu bëggewul faatu bëgg même boo amulee sa xaalis boo ñëwee dina la la nga bëgg nga dem te kenn du yëg moom yenn saa yi dañuy dal si kawam sax ne ko yow liggéeyoo da ngay maye ndax moom xaalis boole koo kenn xale bu yaru la xale bu baax xale bu am jom te daf ci dem ak euh, mën naa ni yéene ndax bu la defaralee boo génnee fii foo romb ñun la macha allah lim la defar rafet na ah xanaa li yàlla ne lool rek nga war a nekk man looloo ma dal ci coiffure